yéen yi safo di ñu suivre ci Ken Bëggul TV ñu ngi leen di delloo njukkal di leen wax jërëjëf jërëjëf ci safoo bi ngeen safo suñu ay programme wéy leen di ñu suivre te bu leen fàtte bés cloche bi tax ngeen di xam li xew ci kër gi saay su ne jërëjëf ci seen kóolute ak ci seen fidélité ñu nag yéen ba faaw.

war ko bàyyi xel bu baax baax ci élection locale yi ñu jëm ñëpp xam nañu ne le 23 janvier 2022 euh, élection locale yi dafa am solo lool résultat yi ñu koy bàyyi xel rawatina nak ci Tivaouane surtout nag commune bi nga xamante ne nii ñoo fa jiital Sidi ababakar Niang ba nak nag balaa ñëw sax ci euh, kan moy Sidi ababakar Niang ñu fàttali leen né enjeu yu bari am na ci élection locale yi ñu jëm moo tax bi xiro bi ak ngaayo bi bari lool ci réew mi rawatina ci tout politique gi waye nak coalition de l'opposition bi di Yewwi Askan bi ñom euh, ñu ngi bàyyi xel bu baax baax enjeu yi nga xamne mo am ci election yi rawatina ci yenn gox yi nga xamanteni ni euh, faaw ñu ut fa nak ab candidat bo xamanteni ni askan ba danañ ko mëna doylo ngir mën ko jital ci sey li gox goxaan bokku na ci nak commune bu Tivaouane bi nga xamanteni ni euh, tanefu coalition yewi askan bi moy euh, candidat wu parti de l'unité du rassemblement bi di Sidi Ababakar ñan mom nak ci fatali rek fofu lu juddu ci Tivaouane yaro Tivaouane jangé Tivaouane mag tekki del soir ci Tivaouane ngir jariñ Tivaouane Sidi Ababakar ci rum bi nek lo xamanteni ni ñu bari rafetlu nañu ko ci biir yeewi askan bi amul toon benn xëccoo ci bu ñu seetlu ci yeneen gox yi ni muy demee ci coalition bi nga xamante ne di tànneefu candidat gox yi dafay xaw a metti lool waaye nag Tivaouane amutoon coow ñoom ñi nga xam te ni bokk ci coalition yeewi askan bi yëpp dañoo mànkoo bokk jiital Sidi Ababacar Niang bi nga xam ne tànneefu Cheikh Sidi Mouhamadoul Moustapha Sy la ci fàttali sax ñëpp ngi euh, fàttaliku conférence bi nga xamante ne ni Cheikh euh, ci euh, élection locale parti pur gën a taxaw ci dëkku maamam bii di Tivaouane amoon na yéen tam daal di am koo xamante ni ndawam la bu ko mën a nekkal ci mairie bi ngir daal yéene mu mën koo mottali lii moo taxoon daal euh, waa parti pur itam def élection yi seen élection bopp rawatina foofu ca Tivaouane tànn nag koo xamante ne nii expérience am ak ouverture am na ko mu daal di nekk maire Tivaouane waaye tamit am liggéey bu yaatu boo ne nii am nañ ci moom njott bu rafet ne war na ko mën réaliser foofu ca Tivaouane fàttali ne élection yi élection de base la candidat bu ñu jiital ci benn gox dañuy jàpp ne rek en premier sa parti bi nga bokk yow foofu sa base la boo parti pur ci euh, nga xamanteni ne base am la fépp dañ ko bàyyi xel bu baakha baax euh, xam Dakar la mo xam Louga mo xam Saint-Louis mo xam tamit euh, ci Tivaouane bu ñuy parti pur bu ñu ko tuddee tamit xel yi dem ci Tivaouane ndax ki nga xam de moy président parti bi te moo di Serigne Moustapha Sy li mo tax waa Yewwi Askan bi tamit japp ne wa parti pur buñ leen jiitalee ci commune bu Tivaouane mën nañ fa am ndam lu yaatu ci élection yi ñu jëm Sidi ababakar Niang yi nga xamanteni investir nañ ko foofu ci Tivaouane investiture bi nak wa parti pur ñoom nooyaluñ ko benn yoon ndaxte ñom jël nañu devant yi ci communication bi ba xol ci réseaux sociaux yi wane nañ seen doole bu baax baax waaye tamit leaderu yewi Askan bi ñoom ñëpp fas yéene koo teewee ku ci mel ne Ousmane Sonko Déthié Fall ak sax ñeneen ñoo xamante ne di jóge ci biir grande coalition bi investiture bi na fas yéene nañ cee présenté euh, candidat yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu euh, Tivaouane bi yëpp fi ñuy gën a focus nag moo di ci commune bu Tivaouane bi nga xamante ne ni tàdd nañu euh, Sidi Ababacar Niang di nit koo xamante ne nit ku yaatu la ku lu ñëpp seede juddoo foofu nga xamante ne moo di ca Tivaouane am njëriñ lool ci Tivaouane ndaxte amul woon sax xaaj ak Sène bi ñuy wax naan moom la ñu bëgg a tabb ci commune bi ni mel ndaxte ñëpp ko xam ci Tivaouane nekk koo xamante ne nii euh, responsable bu mag la ci euh, parti de l'unité et du rassemblement waaye tamit Sidi Ababacar Niang jege lool askanu Tivaouane am expérience lool ci wàllu politique ndax ñëpp a xam taxawaayam ci législative yële nga xamante ci atum 2017 liggéey bi nga xamante ne nii liggéeyoon na ko ci département bu Tivaouane bi ba pur mujjee am ñetti député ci assemblée nationale euh, lool personnalitéem chaque jour ci terrain bi moom Sidi Ababacar Niang ànd ceeg fu ak fayda fofu ci Tivaouane nekkatul ko xamanteni dañ ko fay présenté te ku ñepp xam la mu nekk expert bu mag ci domaine am ba nekk responsable laboratoire de contrôle et de recherche à la multinationale cefos candidat wu parti de l'unité du rassemblement bi ci bir Yewwi Askan bi wara mëna am sens lool gagner élection locale yi ñu jëm fofu ci Tivaouane ndax expérience am may ko ko personnalité may ko ko maîtrise gi mu am tam ci ville bi nga xamante di Tivaouane may na ko mu daal di jité commune bi ni mel boy xol ci parcours académique gam da ngay xam ne ki borom xam-xam deug la Sidi Ababakar Ababacar jangé jànge Tiwaawan ba BFM fofu ci douanu Thiès ci lay sogo Thiès dem Saint-Louis ngir mëna am baccalauréat xélam xarañoon lool ci walu mathématique ak technique Sidi Ababakar Niang major ci promotion en 1972 ci institut universitaire technologique bi nga xamanteni di jamono ji ñu ngi koy Dakar waye boo doon présenté ci présentation bu gatt rek dag nga ingénieur la spécialisé wu ci phosphate bu mu yoké xam ci domaine bi fële France lépp rek ngir mën ñëw jariñ réewam rawatina goxam bi di Sidi Ababakar Niang bu ñu rek ci parcours professionnel alalam xam ne kii bokkut ak gaay mooy candidat bi nga xamante ni xam-xamam ak ràññeem rek su ko jëriñee Tiwaawan Tiwaawan dana jugee ci étape dem ci beneen étape ndax booy xool capacité intellectuelle am rawatina ci domaine professionnel am na ci expérience su 40 ans d'abord nekk technicien supérieur ci compagnie sénégalaise des phosphates bi nga xamante ni moo nekk ca Taïba Ndiaye yemul foofu moom Sidi Ababacar Niang waaye dafa jigi étape yépp jiite woon na fi comité technique bu institut mondial du phosphate ba noppi nekk membre équipe bu technique bu doon càmbar wàllu phosphate fële ca Matam ca Casamance ak sax ci yeneen i dëkk Sidi Ababacar Niang boo ko bëggee xam jàppal ne mooy boroom xam-xam bu sell bi dundam yépp mu def ko ci wàllu recherche maîtriser gi mu maîtriser Tivaouane xam enjeu yi nekk ci Tivaouane rawatina ci domaine économique te saa su nekk mu des ci ginnaaw lool donte ca biir Tivaouane na am na ay yu bëri yu fa nekk yoo xamante ne ni waroon nañoo jariñ ville bii di Tivaouane waaye entreprise yooyu yëpp amuñ benn jeexintal ci ville sainte bii di tax lu muy la saa su nekk am na yenn bés bu téyee commune bii di Tivaouane entreprise yooyu yëpp par force ñu daal di jëriñ Tivaouane Sidi Ababacar Niang yéene moo di liggéey Tivaouane ba mu méngoo ak niveau bi mu yellool ci domaine yëpp nag moo tax booy xool jàpp na ne moom Tivaouane fa fa mu nekk dëkk boo xamante ni ku fay dugg xam fii nag mooy dëkku Cheikh Seydil Hadji Malick ci leeraay ci taar yokkute ci domaine yëpp xale yi mën a am liggéey te sax loolu bokk na ci priorité ndaxte jàpp na ne société yi nekk ci biir peuple doomi Tiwaawoon yépp liggéey farata la ko def ci mandaam bi nga xamante ni moom lay yóotu Sidi Ababacar mu sell mi tey yaru fonk boppam fonk nit yaatu loolu bëgg Tiwaawoon am gëm-gëm ci Tiwaawoon ne xam-xamam ak yéene bi mu am ci Tiwaawoon war na ko mën a réaliser moo tax muy sàkku ci doomi Tiwaawoon yii ñu bàyyi ko xel rawatina ci élection locale yi nga xamante ni di bu ñu jëlee Tiwaawoon teg ko ci ay loxoom ci ay at yu néew Tiwaawoon xar kanamam a soppeeku day jubal sell tey sellal gëm Tiwaawan dëkk fa bëgg Tiwaawan te koy jariñ Sidi Aboubacar ñoo kenn xam ko ci wuruj wala ñu koy tuumaal ci alal bu lewul nit ku sell la set am yaakaar ne xam-xamam ak yéeneem war na ko mën a réaliser ci Tiwaawan waay waay askanu Tiwaawan yeewu leen candidat bu set sell bu yayoo Tiwaawan ba yëkkati niveau bi mu toll ci nu mu ko yaakaar yi ba mottali yéene mag ñi fi nekkoon ci Tiwaawan loolu ci kenn kese la nekk te nga xamante ni mooy candidat wu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy moo tax askanu Tiwaawan jeunesse bi yëpp yeewu nañu bi bi tegg ko ci loxo politiciens yi teg ko ci loxo nit ku jub tey jubal ñoom ñëpp nag tànn nañu Sidi Ababacar Niang mi nga xamante ne nii moo koy jox ñëpp rendez-vous ci samedi bi investiture bi nga xamante ni moom lañ ko jagleel ci teewaayu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir coalition bi di Yewwi Askan Wi yal na yàlla mottali yéene Cheikh Sidi Mouhamadoul Moustapha Sy ci Sidi Ababacar Niang maa ngi jox rendez-vous semaine allah yéen ñi safo di ñu suivre ci Ken Bëggul TV ñu ngi leen di delloo njukkal di leen wax jërëjëf jëf ci safo bi ngeen safo suñu ay programme wéy leen di ñu suivre te bu leen fàtte bés cloche bi tax ngeen di xam li xew ci kër gi saay su ne jërëjëf ci seen kóolute ak ci seen fidélité ñu nag yéen ba faaw.